waaw ah, fas gi loo xam ne oh. ci sëriñ bi la jógee ci Cheikh Cyril Mokhtar te sëñ Cyril nag ku ne xam na ni cheikhul murabbi la te sëñ Cyril Mokhtar bu koy wax dañuy wax cheikh dañuy wax suñ baara suñ baara nag naan def jamono yi nawet mbaa bu mbas amee mu bindu téere téere bi képp koo xool rek sunu borom mën na laa muccal ci mbas mi waaye fas goo xam ne fasum néew kàttan la mm. moo xam da ngay sëy di gaaw di yegg mm. mbaa sa awra di dellu waaw ah, waxtu woo ko takkee rek suñu borom dana la ci defal tawfeex dana defal dana la ci defal ngëneel day loo xam daal képp koo xam ne yàlla dogal na ne am nga ko na sant yàlla bu baax a baax a baax ndax li ci nekk ci ngëneel kenn mënuñ ko misaal day loo xam daal ak tawfeex la mbokk yi Cheikh Sidil Mokhtar moom baatin ba jaaxal na Kajoor lu mu wax boroomam mun a waaw Cheikh Sidil Mokhtar borom juróom-ñaari sooro li borom juróom-ñaari lu xalifa Cheikh Ahmadou Bamba baatin ba zahir sa la ko sànne woon sëtam mbaa ngi nii toog di ñu faram-fàcceel fas gi sëriñ bi waaw fas gi de day loo xam ne ci Cheikh Sidil Muxtaar la jóge di fasum néew kattan ndax sëñ Sidil Muxtaar kenn ku ne xamoon ne cheikhul murabbi la waaye lii képp koo xam ne am nga jafe-jafe néew kattan waxtu woo ko takkee rek sunu borom dana tàqale ko moom génn naa ci Cheikh Mamadou Lamine Baara oh. mboolem jafe mboolem tawatug néew kattan gu mu fekk ci rek waxtu ko takkee rek ndax gàllaaj gi day gàllaaj goo xam ne ne biirun baarun sasa saxit mu jib waxaaf janafa janafa min mufsidin xeeti baat yooyu day baati jat day gàllaaj goo xam ne boo ko takkee léegi rek na nga koy gis léegi képp koo xam ne am nga jafe-jafe néew kàttan rek waxtu woo ko takkee rek sunu borom dana la ci defal tawféex dana dana defal xéewal moo xam da ngay sëy di gaaw di yegg mbaa da ngay sëy fukki minute waxtu woo ko takkee rek mën ngaa sëy ñeen fukki minute ndax day loo xam ne ngëneel la goo xam ne kenn mënu koo misaal ndax jàngoro yi néew kàttankat day tawat joo xam ne jamono daa dem ba yegg ca waaye képp koo xam ne am nga jafe jafe niw néew kàttan nag waxtu ko takkee rek sunu borom dina defal tawfeex mbokk yi di am mbégte rek bu baax a baax a baax à travers Sénégal Buzz 221 mbokk yi ni ñu koy defee ak yéen rek saa su ne di dalal ay kilifa waaye tey nag ñu toog a teg koo xamante ne ni ñu koy waxee dootuñu ko présenté sénégalais muy suñu papa Manga ñu yàgg am ak moom jotaay saa su ne rek ñu ko ci nuyu bu baax encore une fois di ci béeg papa comme ni ma koy defee rek saa su ne ñëw seet si la ñu waxtaan lépp loo xamante ne njëriñ lay doon ci askan bi waaye saa suñu ko defee rek askan bi ñu bëri kontaan ci am ci mbégte bu baax a baax a baax ma dalaat la tey ma bàyyi rek nga nuyoog mbokk internet yi maa ngi lay char merci beaucoup maa ngi lay gërëm di la sant tout d'abord maa ngi lañ doxle ci at bu bees bi jërëjëf jërëjëf euh, li ngeen bëgg yéen a ko xam mhm. yàlla defal leen ko te mu nekk lu gën ci yéen amiin amiin amiin euh, di souhaiter askanu réew mi yëpp mhm. jàmm meilleurs vœux mhm. at bi 2024 gën bu 2023 yàlla defal ñu ci sutura defal ñu wër gi yaram defal ñu jàmm macha allah yàlla defal ñu sutura defal ñu jàmm muy kàddu ñaan yu am solo ñuy ñaan bu baax a baax a baax yal nañu ko suñu borom boole ñun ñëpp te ñu fekkee ko waaye li may dooree rek papa euh, làmb saison 2023 ndax am nañ am ngeen yaakaar 2024 daax ko ndax euh, amateurs yu bëri dañoo ne 2023 bi moom macha allah màndi nañ lamb papa. <laughs> waaw comme ni nga ko waxee rek. <laughs> ñaan yàlla te yàlla mooy joxe mooy maye. Mhm. Euh, dañ koy ñaan. deux mille vingt quatre bi ñu dugg nii. Mm-hmm. mu gën deux mille vingt trois. amiin amiin. ndax ñu bëri amoon na lu ñu ragal ci deux mille vingt bi. Mm-hmm. te yàlla defu ko. Mm-hmm. ndax am na ay combats yu bëri yoo xam ne nit ci dañ ko tiitoon. bi wax ne du am am dina am du am. yàlla def mu am. ñu mel combat. waaw Modou Lo Ama Baldé. ñëpp waa askanu lamb rek. ñoom ñëpp ñoo ragaroon combat boobu. rawatina ku nekk ay supporteurs am. ba am na ay nit yoo xam ne. dañuy ragaloon na ñëw stade. Mhm. ndax loolu. te gis nga ñu yàlla def. Mhm. le CNG jóg waxtaan. Mhm. ak askanu dem ñu yor mbër yi ñu waxtaan ak ñoom. waxtaan ak mbër yi sensibiliser leen de la non violence. ak supporters yi yëpp. ba yàlla def ci jàmm. ñaari mbër yi aussi conscient ne lii mooy seen liggéey. ci la ñu war a terale teralee seen waajur mhm. war ci terale seen xarit yi mhm. war ci terale askan làmb en même temps mhm. ndax làmb soo ñëwee bi am plaisir am na problème yu bari boo xam ne da koy fàtte waaw jëkkër ak jabar xuloo nañu jógee ci làmb ji juboo ci làmb ji dëgg làmb ji kon nag làmb fédérateur la ñoom ñu xam ko xam ne c'est des monuments de la lutte sénégalaise ñoom ñu indi fair play mhm. def lu kenn xalaatu ko woon mhm. ba yàlla def ku daan xam ne yàlla moo ko jox ndam bi mhm. ku daanu xam ne yàlla moo ko xañ ndam ci bés boobu kon euh, ni ñu ko waxee rek yaakaar naa ni euh, làmb yooyu nga xamante ne sénégalais ñu ngi ko doon it suñu borom dimbali ñu ci ba ñu wees si ak jàmm ak salaam ñu ngi ñaan nag euh, mille 2024 bi dàq bu baax a baax a baax li nga xamante ne moo di 2024 bi papa làmb royal dafay jàlloon bëggoon naa ñu waxtaan ci sax avant combat bi waaye yitte ak temps bi jotuñu ko won may combat Modou Lo Boy Niang bi ña taxoon nga seetaat ñaari mbër yi ku ci nekk say entraînement gis seeni face à face naka nga jàngee woon ñaari mbër yi pap nu ma jàngee woon ñaari mbër yi comme ni nga ko waxee keroog xam nga ku nekk dafa am mhm. xam nga soo amee combat dangay jàng sa adversaire mhm. entourage bi liggéey ak yow entraîneur bi liggéey ak yow mhm. mbokk yi di liggéey ay yow en même temps. Mhm. kon nag bés boobu ku nekk indi na forme. Mhm. ku nekk andi na ak ay mbokkam. Mhm. ku nekk indi na entraîneur am mu diriger ko. yàlla moo waxoon ne Modou lay jox ndam bi. mu jox Modou ndam bi. boo ñaa xamee ko noonu aussi ne yàlla moo ko xañ ndam bés boobu. mais démérité wul kon nag mu gëm ci yàlla ñëpp gëm ci yàlla. seulement lu ma mun a déduire euh, déduire ci combat boobu. Mhm. Euh, Modou Lo plus lucide que son adversaire mhm. ci wàllu préparation mystique. Mhm. ci wàllu démonstration de bac. moo gënoon a tey. moo gënoon a nekk ci làmb ji. le jeune. Boy Niang était trop trop excité. bien def comme ku yàkkamte combat bi. Mm-hmm. ba est-ce que nu mu waroon a doxalee doxal na ko mystique yu aussi yàgg. Mm-hmm. boo xam ne mun na ko perturber. Mm-hmm. donc ma wax loolu moo tax entourage am solo bu rëy. encadrement am solo bu rëy. te combat bi aussi dama ci kontaan pourquoi a kontaan ci. ñaari mbir yëpp dama ci gis ay anciennes gloires yoo xam ne ñoo leen accompagner. lu mel comme père Ndiouga Dia. Ndiouga ja ci si ak Modou Lo. Mhm. ba def démonstration. lu mhm. bàkk foofu bien sûr. ñu gis De Gaulle. De Gaulle ànd si. ak doomam Boy Niang mhm. mais Mansour Diop. siisu moom ci boppam. ñëw ci làmb ji ànd ak Boy Niang kon événement boobu événement bu rëy la. bu fàttali làmb dem. moo tax ma di leen félicité aussi. ndax làmb ji mënoon na am coow. mais ñoom dañuy wax ak seen xale yi seen jarbaat yi ne lii làmb rek la. sport la. nekku leen ay ennemis ak adversaire ngeen. te ku nekk mooy jox boromam teraanga parce que Modou Lo su waxoon ne du bëre ak Boy Niang. waaw bi Boy Niang am du ko am. dëgg la Boy Niang su waxoon ne du bëre ak Modou Lo bu Modou am du ko am. kon nag. ku nekk dafa am njëriñu monomam. Mm-hmm. moo tax ku nekk dafa war a ñaanal adversaire am yàlla defal ko jàmm. Mm-hmm. waaw tey boo yoroon booy Niang comme ni ñu koy faral di waxee mbër bu xasee ba daanu critique yi day bëri mbër bu daanee du ñu gis li nga xamante ni moo di ay sikkam tey booy Niang sa gis-gis lan la xaw a manqué ci bés bi wala lan lañ ko conseillé loo xamante ne waru ko woon doxalee ci bés bi ba boo ko yoroon di ko ne nii ak nii ak nii ngay doxalee sa gis-gis. xam nga soo indee mm-hmm. ci kër ga nga koy préparer. bien li nga war a wax ak moom ñëpp ci kër ga nga ko war a wax loo gis ci làmb ji mais soo ñu waatee bi ci en bi. Mhm. yaakaar naa ne conseil yi foofu bëreetul. su fekkee ne premier contact am na ba deuxième contact am na entraîneur bi coach bi war a dellu soit mbërëm yi. Mhm. gis automatiquement fay yoo xam ne ci premier prise deuxième prise am na. Mhm. mu recadré ko. mais ci premier premier coup de sifflet de l'arbitre mm je pense que conseil yi waratul bari parce que li nga waroon a def su fekkee ne def nga ba pare mhm. euh, le lutteur xam na lu mu war a def mhm. Mhm. te dafa am loo xam ne soo fa egsee waaw yow mbër bi yaay def finition bi kenn du la finir pour nga daan yow sa conscience sa xam-xam mu la déterminer suivant nit bi lu mu indi ak nit bi nu mu ñëwee bëre jële su ñëwee nag ku nekk day wax. Mhm. mais jël su ñëwee kenn mënu ci dara. yow mhm. mbër bi sax da ngay dof da nga mun def comme ku mosul a bëri. Mhm. waaw gis nañ xeex bi. waaw gis bëri bi tey boo doon décrire erreur ndax gis nga ko foofu noonu. waaw erreur yi bëri na parce que dafa dem ba moment boo xam ne bëri moo waroon a des foofu au lieu que xeex bi. xeex bi. Modou Lo wu ci xeex bi. parce que touché na ko. te mbër su nekk xasee touché yeneen touché yi rek day am lu wàññeeku ci yow. Mhm. donc loolu aussi c'est des failles. Mhm. c'est faille ci xeex bi ci xeex bi yooyu mhm. yëpp. Euh, nit bi aussi dafa am ñoo xam ne dañu wax ne Boy Niang waruloon may Modou Lo mu réfléchir. bien sûr mais ku nekk ak li nga gisee mbër bi lu mu indi. parce que Boy Niang ñëw na ne teg. Modou ñëw ne teg ñu di léewtoo ku nekk di examiner moromam lan la indi. Mhm. foofu réflexion la. Mhm. la laaj. Mhm. Euh, je vois aussi que boo ñaan tànk bu mu indi jiital. est-ce que waroon na ko jiital digganteem ak Modou Lo. ok mais loolu seen technicien ñoo mun a définir loolu. xam nga nit bi soo liggéeyul ak moom. dafa am loo xam ne mun loo egg foofu. ci wax. waaw Mm-hmm. après chute bi aussi j'ai vu de fay comme quoi. comme quoi papam nu ngi ko attaqué. Mm-hmm. rapidement. oui. man ça aurait été ou bien ma bokk ko ci entourage bi c'est pa le moment dangay ñëw jël mbër bi. Mm-hmm. indi reconfortement ci mbër bi pour mu dellu soit gëm yàlla gëm loo ko yàlla ci bés boobu. te am na ay ndam. bien sûr. amaat ay ndam. Mhm. kon nag tey su ñëwee ñàkk ndam. Mhm. nga xam ne lu war a am la. Mhm. après conseil yi je pense que kër ga la nekk te warul nekk même même jour bi. même jour bi déjà mbër su daanoo rek danga gis mbër du daanoo sax ne lan lan lan moo xew. lu xew lu xew. jële bi daf koy bett. waaw kon jële bi daf koy bett te mosu ko xaar. mosu ko foog. nit dina gémb ba foog ne bés bi tey. Mhm. yaakaar naa ne duma laal suuf. dëgg la nga laal laale suuf ci ñàkk fay rek. Mhm. Mhm. da ngay comme ñenn ñi nga xamante ne ay nitu làmb lañ ni ñu koy faral di analyser Modou Lo mbër bu déglu doo ko daan tu es no non ça dépend ci bés bi. ok nit dina xaar mbër mbër bi ñëw def erreur yàkkamte mu daal la yow su fekkee dañ la wax ne. Boy Niang mhm. ou bien Modou Lo soo ko xaaree doo ko daan nga dugal loolu sa esprit mhm. te nekkul sa minin war a xaar soo demee rek di nga am fay mhm. donc ku nekk dafa am stratégie boo xam ne benn waay dama woo ne euh, Balla du may Modou Lo temps d'arrêt ma ne ko je suis désolé dina ko may temps d'arrêt parce que seen combat bi lawtoo nañu quelque minutes bien sûr avant action am ku nekk di xool moromam te ku xam Boy Niang xam ne. Mhm. Boy Niang loolu nekkul astuce am. waaw ñëw rek. attaque attaque ku nekk dafa am. Mhm. mu neen ci li mu mën ci la ko moo du fekk ci vidéo ko. waaw daan ko ci parce que Boy Niang gis nañ mbir mu dal ci kawam dalay daan te gis nañ moom moo def action dem jëli ci. waaw est que nekkul dafa bàyyi mëninam. waaw mun na bàyyi mëninam ou bien euh, comme ni ma la ko waxee rek.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 parce que su fekkee ne ci saa si ñu ngi koy wax ne conseil yi ñu la joxoon. Mhm. respecté wu ko. Mhm. je vois ça anormal. waaw mhm. waaw. Euh, dafa am benn question boo xamante ne nag papa xam naa nag tey ma foog ma laaj la ko ndax euh, question la bu ñu bëri ñoo xamante ne dañu koy faral di posé wu papa maa nga nekk ci li nga xamante ne mooy làmb doon roi des arènes dëkk parcelle à chaque fois dañuy faral di dégg li nga xamante ne moo di 100 pour cent parcelle lu tax mënuñoo gis papa maa nga mu ànd ak Modou ci làmb wala mu préparé ko combat seen non euh, Modou Lo mënuma ko ànd ak cumukaay. Mhm. parce que mbër bu nekk dafa am cumukaayam. Mhm. man suma mag bu ma bokkal ndey ak baay. Mhm. ñëw na suñu cumukaay ñu dàq ko ñu ma bokkal ndey ak baay. parce que bokkul ci cumukaay bi. mbër bu nekk dafa am estafam. am ñoo xam ne. ñoo la wóolu. ñoo la jox seen bopp. ñoo ñoo ko dimbali. bokkul ak ñoo xam ne dañu nekk ci gannaaw mun a jox nit conseil mun a wax ak moom ou mun a jox nit tegtal. Mhm. ça n'a rien à mhm. waaw 100 pour cent parcelle bi yaa ngi ci biir. 100 pour cent parcelle mi parcelle laa dëkk. Mhm. ku dëkk parcelle 100 pour cent parcelle nga su fekkee ne yàlla def na nga am fi kër pour cent la. la preuve étant donné di unité 24. man man naa ki président ASC bi. bien sûr. ñaata at. dama yaafal defar ça fait des années ma indi ay ndam fii. Mhm. parcelle donc je suis de parcelle wa. Mhm. kon wàllum làmb bi parcelle lu tax duñu lay faral di gis souvent ci yenn yi wala ñu lay gis ci yenn événement yi wala ci ginnaaw mbër yi lu tax. non man xam naa ah, xam nga am naa école de lutte. Mhm. mais doo ma gis ma ànd ak suma mbër yi. donc ça fait partie de mes principes parce que ñëpp laa njabootee fu mu nekk. dama dem ba njabootee ñëpp. këm ku nekk mbër rek. suma jarwaat nga ou bien suma rakk nga ou bien suma doom nga. Mhm. donc je pense que am na moment yoo xam ne waratuma feeñ ba ñu indexé ma mais en ngemu kii indi ko. Hmm. tu kon ñiy posé. Mhm. mun naa jàppale ci xel. Mhm. mun naa jàppale ci do dox doxin. loolu. loolu moo ma waral fu mu nekk. Mm-hmm. Mm-hmm. loolu moo la waat fu mu nekk nii. kon euh, yaakaar naa ni ñi nga xamante ne à chaque fois ñooy faral di posé wu question boobu leeral boobu dina am solo bu baax baax ci seen bopp waaye ba tey ci làmb ñu bëri dañoo gis ni euh, ginnaaw roi des arènes yi nga xamante ni ñoo fi jota jaar maa nga Yaxya Diop Yékini ni Lo mooy seul roi des arènes bi nga xamante ne moo ko téewee comme ni ngeen ko téewee gis-gis boobu sa gis-gis lan la si. non dama koy rafetlu parce que xam nga chaque moment ku nekk dafa am biddiwam. Mm-hmm. sa biddiw su feeñee yàlla moo la ko defal. Mm-hmm. donc Modou ci biddiwam la nekk. di exploité ko nag xam ne ci biddiwam nekk. di ko mm-hmm. exploité. Mm-hmm. waaw yàlla di ko ci jox ndam. loolu rek la. laa noon rek la. ci moom bëri mu bëri naka nga jàngatee ay bëri Modou Lo moment bi nga xamante ne deux sortes yi mu mujjee def am ci ndam ban gis-gis nga am ci moom. Euh, gis-gis moom gis ci moom mooy respecté lu mu def. nit toujours dara da koy jox li ngay def cër. Mhm. bugg ko xam lii mooy sa njëriñ. Mhm. te koy def. soo ki respecté loo mun def ci àdduna mu liggéey bi ngay def nii. Mhm. ko joxee. cër yàlla dina ci jàppale. loolu rek la. nit bi su defee ay sacrifice ci li muy def woo ne lii dama ko bëgg yàlla def ko ci jàppale. yàlla daf ko ci jàppale. kon bokk na ci li nga xamante ne à chaque fois da nga koy gën a conseiller mbëri nañu respecté li nga xamante ne mooy entrainement ndax beneen philosophe la moo du indiwaat ci làmb que ni 1000 pour cent wala 100 pour cent bi ñenn ci mbëri doon concentré wu ci làmb loolu minimum la entraînement mooy lépp. oui loolu dëgg la mbël bu am amul entraînement euh, da gaaw a jeexal hmm. non seulement nit bi. Hmm. soo respecté wul sa entourage. Mhm. respecté wul sa entraîneur. Mhm. di nga bëri ay fay. en encadrement dafa am solo. Mhm. joxe cër dafa am solo. na man am naa ay kilifa yoo xam ne ci suma entourage. ñi mu ma génn guddi ñu gis ma. dama leen ragaloon ñu gis ma ma def loo xam ne nekk noonu. loolu dafa am solo ci mbir. ñemu ñoom ñu wax ko ne Manga 2 dafa doon toog cigarette dem donc. ça veut mhm. dire que am na lu bari lu ma doon moytu. Mhm. kon nag mbër bi su tegee xam ne mbër la nekkatul nit simple. Mhm. am na ay recommandation sportives yu mu war a topp. yàlla dina la jàppale bu baax. voie nekk ci voie wu roi des arènes wax nga ko léegi pour mbër yegg foofu nan la mën a doxee papa. nu mu war a doxee rek xam ne sa morom nga nekkal. Mhm. loolu leen ci dara. Mhm. yàlla moo la jox loolu. li mu la jox nag nga téye ko ak fukki loxo. Mhm. noo ko téye ak fukki loxo am na ay moment yoo xam ne da war a dem tëddi. am na ay moment yoo xam ne yu sew warloo ci dugg. ñoom xam nañ ko. donc yooyu yëpp bane àdduna la. mais di di nga ko xañ sa bopp. loolu soo ko defee yàlla mun naa defal nga. respecter mag nag jox mag cër surtout ça c'est très important. ku la mag bugg la te defaloo ko dara. mun na xeex ndax yow. mun na jaay këram ndax yow. nga ñàkk ko kersa moo gën a bon ci àdduna. man mun naa wax ne xale bu ma doon àndal ndem si yàlla man maa ko ëppoon doole. mu nekk suma morom nekk suma nawle mhm. bugguma ci xolam te yàlla tax boo xam ne dinaa ci doon dugg ci dara moom daf ma doon poñe ne loolu du mun a nekk te lu muy wax mooy am mhm. lu tax jox ko cër cër kon mbër dafa war a di xalaat loolu mhm. ñi la bugg ndax succès bokkul ak loo xam ne yàlla def leen nattu ci yow dëgg la loolu dafa am ñi la bëgg ndax ñoo lay financer sa xaalis. Mhm. bokkul ak ñoo xam ne nit bi yàlla def ko nattu ci yow bakkanam mun na ci root. ci li ngay mhm. def. Mhm. kon yooyu yëpp yu jar ràññee la. yu jar a ràññee la. waaw macha allah yooyu yëpp yu jar ràññee la yaakaar naa ne conseil la ci ndaw ñi nga xamante ne bëgg nañoo doon euh, li nga xamante ni mooy euh, roi des arènes wala ñi yegg làmb fu sore sore sori Modou pare ci ki nga xamante ni moo di booy Niang les adversaires de Modou dañu cité ñaar ñoo xamante ni nee nañ ñii c'est potentiel ku ci mel ni Sa ak sa Tine sa gis-gis ci adversaire Modou Lô Modou Lô combat revanche la war a bëriwaat wala mu jël ci combat jànk yi papa loo gis. non xam nga lu ma gis yëpp la. Mhm. Modou ku mu neex mun na bëri ak moom ndax fu mu jaar la dafa bëri ak ay rakam. Mhm. bëri ay moromam. Mhm. bëri ak ay magam. kon nag. amatul loo xam ne am na frontière l'essentiel Estafam moo war a def analyse war a def d'ici un an ou bien d'ici deux ans mhm. suñu lutteur lii lañ koy préparer ci mhm. lii lay nekk pour kii ak kii ak kii ñoo xam ni ñu ko liggéeyee ci seen wàllu bopp mhm. parce que Estaf boo gis rek am na ay secret bien sûr bien sûr loolu la parce que Modou na adversaire bu nekk mun na bëri ak Reug Reug mais ñu bëri dañuy ne làmb jooju dafa teel parce que. mun na làmb du teel bu may tënk duubalees làmb ji teeluloo. amul benn làmb buy teel. bu ma tënk duubalees bi ma ñëw. Hmm. Robert daf hmm? ne ma duubalees daf lay yàq de moo ma ne ko duubalees ba mu ma bëri ak moom dinaa ko daan. bu hmm. fekkee natt naa ko dem si yàlla bi bu yàgg. bu baax maa koy ñaanal yàlla yàlla xare ko àjjana. amiin amiin amiin donc euh, làmb fekkante la. kon gis nga ni combat boobu jaadu na war nañoo mën a bëree parce que ñu bëri dañoo ne dafa teel. léegi defagu fi dara ça dépend ci Modou Lo ça dépend ci Modou Lo Modou Lo moo dirigé fu mu nekk ku muy bëreel adversaire am ku muy bëreel et ça dépend xam nga mbir dafa am foo tool loo xam ne. Mhm. su la jëralee lu ñu la fay rek war nga mun a compétir. Mhm. Tyson bëri na ak moom. waaw dañu waxoon ne waruma bëri ak moom parce que pare na ci làmb. Mhm. jaratu ko waaw. mais ñeneen ci entourage bi ñoo ma wax ne da ngay bëri ak moom lu tax nga bëri ak moom war a bëri ak moom. Mhm. tegal ma tegal ma ba convaincre ma donc ma bëri ak moom. Mhm. te mun naa wax ne. Mhm. combat boobu lu ma indil. yeneen combat yu ma bëree yëpp mosuma ko indi. te ci nga perte roi bi. non teguñu woon roi bi. waaw ah, boobu combat mais dañu bëre. Mhm. mais nekkuloon woon roi bi la ñu bëre. ok parce que dama amoon chance aussi. Mhm. mun naa bëre sans drapeau bi. Mhm. waaw am combat yoo xam ne dañ ma imposer pour ma bëre drapeau bi aussi. loolu dafa amoon. kon est-ce que Modou Lo mën na waat komba boo xamante ni du teg couronne bi wala réglement yi dafa. changé non non non bokkul bokkul loolu règlement la woon. parce que couronne boobu bi ma nekkoon roi des arènes dama amoon ay prime su ma ñëwee. indi drapeau bi def démonstration no paak am prime. Mhm. su ma toogee ba trois mois am prime weer bu nekk. Mhm. donc loolu bokkul ci couronne yi léegi. bokkul ci couronne yi léegi soo ko jëlee rek pare nga ci. Mhm. kenn du la defal prime. donc loolu c'était reconnu par l'État. waaw. Euh, yaa ngi woon ci teel bi ba tey ci Modou Lo Reug bi. parce que ñu bëri dañu ne. mais Tapha mu ngi fi aussi. waaw ah, Modou Lo mun na bëre moom. si. Ah, combat bu ko neex mun na ko bëree fu mu nekk sa dépendra ci estafam. Mhm. ak moom ci boppam. mais amateur ñu bëri combat ak Tapha lañ gën a lañ gën gis. combat la combat la combat jànk la moo suñu bëree. du risque su Modou. Modou amatul combat bu muy risqué. ok ni dëj tool boo xam ne yow yaa gëm sa bopp. Mhm. wax ne lii risque la. moo Modou su boppam ne combat bëre ak Tapha Tine la kon mu tekk ngemu. Mhm. ñu gën a dangereux Tapha Tine daan na leen. Mhm. donc ban ban ragal la mun a am ba di xalaat ne lii risque la pour ma bëri ak Tapha Tine. parce que ñu bëri doole ji lañ ciy xor ragal ak. doole tension doole bi mu leen nax Modou Lo nu mu toll doole am double na noonu. Mhm. xam nga nit day sew te am doole. bëgg la. Mhm. yow mun nga ma ëpp doole te maa la gën a ponkal. donc yooyu yëpp. masse ak force du benn ci yàq la. waaw. waaw kon Modou yaakaar naa ni gis nañ ñi nga xamante ni ba tey noonu la teewee li nga xamante ni moo di roi des arènes bi waaye ba tey ci làmbam ñu bari dañoo am xel ñaar ni Modou est-ce du bàyyi làmb ci yow Modou bàyyi làmb est-ce que teelul. Euh, làmb ça dépend ci fan mu ngi koy bàyyi mais man ci suma wàllu bopp. Mhm. su ma ko yoroon dama ko wax mu bàyyi làmb fu mu nekk. lu tax ndax loolu mooy liggéeyam. Mhm. loolu la yàlla def ci moom. dafa am ay moromam yoo xam ne c'est le directeur de société. Mm-hmm. yàlla nattu ko mu jàng pour nekk député ou bien nekk ministre. Mm-hmm. ou bien nekk directeur de société. Mm-hmm. yàlla ci làmb la ko nattoo. ci biir làmb ji la mun a defal entreprise am. ba yàlla sutural ko su bàyyee mu dem. donc fu mu nekk fu mu toll chance mu ngi ci moom parce que cachet bu mu bëgg yàlla mun na ko ko defal donc pourquoi du exploiter loolu. Mm. pour man ça dépend nag. ci sa vision ça dépend de son entourage lu ma lay wax yëpp xam nga soo bokkul ci entourage nit bi dafa am loo xam ne foofu nga war a yem mhm. donc ça dépend ci gis-gis noonu mais su nekkoon man pour mu bàyyi làmbal fu mu nekk mhm. d'accord uma ci d'accord ci d'accord uma ci waroon na fi mën a bëre waa parce que liggéeyam la mhm. njëriñam la waaw bu ñu xoolee génération ñu bëri Modou Lo rek la ñuy gis à chaque fois ba tey muy maintenir forme bi bu ñëwee bëre loo xamante ne amateurs yi dañuy yuuxu dañuy kontaan lan mooy may loolu mbër papa parce que tey bi ñu xoolee ñu bëri ci génération dañ laa leen yàqu ngeen. waaw yàqu ngeen mooy lu ma la wax rek wax naa la ko loolu staff bi bokk na ci encadrement yëpp bokk nañ ci parce que encadrement bi soo nangoo ñu gérer la wax ak yow. Mhm. am loo xam ne suñ la ko teree nga bàyyi. Eh, yàlla mun naa la defal sutura nekk fii bu yàgg. Mhm. ci li ngay def. loolu rek la joxe cër rek. Mhm. waaw nga bokk ci biir membre euh, CNG doon fa membre keroog dégg nañ sortie bi nga xamante ne moom Modou loo def na ko euh, dañuy gis à chaque fois mbër bi ñu ko laajee ci CNG mu wax waa CNG lu leen neex xarab CNG wala méthode lu yenn difficulté yi nga xamante ne CNG mi ngi koy teg mbër yi mais moom bu ñu déggee communication àndul ak CNG ànd na ak CNG ci benn côté. ndax loo gis te amul réglement rek mën na demee nu ko neex communication boobu nag nga ko déggee. xam nga mbër yi yëpp lu CNG def. Mhm. seen njëriñ la. ñoom la liggéeyal. Mhm. ndax ay kilifa noonu nekk CNG. Mhm. yoo xam ne dañu am ay responsabilité kon nag suñu bàyyee seen liggéey ñëw di jàppale làmb làmb mënul dox sans règlement. amul lu mun a dox te amul règlement. kon nag. luñ ci munte def rek ñu xam ne seen njëriñ la. Mhm. ndax tey suñu bàyyee mbër. Mhm. ànd ak cent personnes ci biir géew yi combat kañ lay am. du sax yegg. minute bu nekk nga jël bouteille. Mhm. sotteeku ba à mille bouteilles combat bi nax lay def donc règlement soo deful règlement ne. lii bépp temps bi soo deful lii dina la am daan lu la topp. donc da ngay respecté loolu. am na loo xam ne. suñu ñëwee dañu wax ne su ma yoon nekku ci nañ ma daggal lu leen neex loolu du joxe cër. Mm-hmm. cër bi mooy réglement boo xam ne dañ ko signé ak CNG sa ménagère signé ko nga accordé ko. Mm-hmm. da nga ko war a respecté à 100 pour cent. Mm-hmm. waaw loolu la mais ñi gis à chaque fois charme làmb mi ngi bëgg dem mi ngi bëgg dem ci yenn règlement yi CNG parce que ku xam làmb. par exemple ban règlement la charme bi du bëgg dem. culture. culture bi. culture bi mu ngi ñëw mbëri ñu ngi bàkku mbëri ñu ngi indi seen xarfa foofu. ana lu wàññeeku ci làmb au contraire dafa am lu exagéré ci làmb loo xam ne. Mhm. nekkatul mystique nekkatul folklore kenn xamul lan la lay doon. Mhm. waaw mhm. loolu bokkul ci làmb. bokkul ci làmb mais cosaan mu ngi ñëw ñu bugg a def làmb cosaan ñu ngi ñëw. Euh, muy lu am solo ki nga xamante ne aussi tamit moo di Boy Niang li des ci làmbam. non Boy Niang lu des ci làmb carrière demagul fenn ba ba ñuy wax ne lu des ci carrière xale la. di émerger kon je pense que moom waxtaan ak ñoom encadrement waxtaan ak ñoom. ba mu dellusiwaat loolu mooy yoon. Mhm. mais boo ñaa demagul fent ba ñuy wax ci carrière am. Mhm. ay morom lay daan ay moromam ñu daan ko. Mhm. mu daan ay magam ay magam daan ko. donc il li Modou Lo def est-ce que daan ngeen ko def seeni jamono amoon ci làmb mbër dugg benn gox daan ñëpp. génn te kenn daanu ko fa comme li dal moo Lo ak waa Pikine. non loolu daf doon jafe. Mhm. daf doon jafe parce que temps boobu ma ñëw ci écurie mhm. man ku ma daanoon balaa nga toog Amoura Sarr daan la. te dañu ànd ak am moom ci loolu. Mhm. donc day jafe. nga daan ma. dellu soit daan ma. day jafe aussi. ok donc donc loolu def naa appel ñu dëkk Pikine ñëpp. kilifay Pikine yëpp dañu war a toog ak seen xale yi. Mm-hmm. sport la nekkuñu ay noon. Mm-hmm. ñu war a jàppalante. parce que soo remarqué euh, Boy Niang. Mm-hmm. bu supporters yi Modou Lo ñëwee. wéyal nañu ama. bien sûr. donc loolu mun na yàq moral. Euh, si Boy Niang. donc yooyu yëpp dara su ci nekkee dara su ci nekkul aussi xelam waa côté am. bu mu daanoo dañ ko am xel fu mu dem. Mhm. parce que mag yi dañuy wax ne euh, mbër su daanoo rek di jéem a ut ku mu ko jiin. ut lay mhm. ut lay. Mhm. et je pense que c'est pas le moment. loolu daal su amee ay kilifa yu fa nekk. bugg a laam gëm laam maa ngi leen di ñaan. ñu dox digg seen diggante ak xale yi. waaw lu yombul waxtaan ak ñoom. ñu waxtaan ak ñoom waaye lu yombul woon ci làmb lu Modou Lo def. moom laa la wax. dugg ci gox daan ñëpp. dafa am chance te gis ne chance bu ma am dinaa ko exploiter. mu xam ne daan naa ci kenn. Mhm. te kenn boobu nekkoon seen yaakaar. waaw keneen ki jiiñ ko keneen. kon kooku su ñëw du ko jox doole à cent pour cent su ko waroon a jox doole à cinquante pour cent dix pour cent la koy jox. Mhm. lamba moo siis. lamba moo siis <laughs> moo tax loolu xëy na day tax ñàkk booloo bi te. ñàkk booloo day am mhm. yeneen adversaires yi. lan la ci mari ma a jàng et puis loolu jafe la dem. muy la def espoir bu rëy la def. muy la def. dans quarante cinq jours un mois nga jël combat. oui moins de deux mois. waaw moins de bu rëy nga bëre ko jógee fa jëlaat beneen combat bu rëy waaw. Mm-hmm. loolu day wone lu bari. Mm-hmm. ci stafam. Mm-hmm. lan ci la goxu làmb yi mën a jànge ci benn mbër dugg ci gox daan ñëpp lan mooy maye loolu ci gox boobu ba ñu mën a daanandoo ñëpp. non lu maye kii boobu mooy sérénité rek. Mm-hmm. mbër bi gëm boppam d' abord buy dugg foofu. Mm-hmm. dafa gëm boppam gis mbër yi ne lii mun naa compétir ak ñoom su ma compétir ak ñoom yàlla mun na ma jox ndam fu nekk. Mm-hmm. daan kenn confiance bi nekk nga jëlaat keneen. yàlla jàppale la. nga daanaat keneen. jëlaat keneen daanaat keneen. noonu la. noonu la mais bu njëkk ba loolu jafe la woon. daan fas ñëwaat comme ni ma la ko waxee ci séeréer yi rek. daanaat keneen ci faas. balaa nga ñetteel dina doy waar <laughs> dina doy waar <laughs> kon Modou daal def na fi loo xamante ni daal ah moom la ñu mën a tuddee mooy number number one kon suñ euh, suñ ko fàttaloo ko xanaa ci suñu mag yi bokk mais suñu génération amul mun mm-hmm. naa wax ne amul amut waaw mm-hmm. xanaa ci ñoom peut-être dem si yàlla ñoom tut bakasaar mm-hmm. ñoom ancien yooyu te yooyu du suñu génération mais à partir de nos génération daal. Mhm. loolu Modou Lo moo defagum loolu. moo defagum loolu. waaw allah ci tàggatoo gis nañ affiche bi nga xamante ni moo war a am vendredi war a am fii sa gox ci terrain Akapes ñu war a def remise de drapeau bi booy Niang war a jóge Pikine ñëw parcelle jox Modou li nga xamante ne mooy ceinture naka nga ko gisee ci li nga xamante ne ba tey ñu ngi innové lamb ñoo defee ko ci gox Modou Lo. rafetlu ko. waa Pikine suñu jógee ñëw parcelle. Mhm. parce que accueil leen. je pense que parcelle mu am sas. dëgg la. parce que mu am sas. Mm-hmm. woon askan làmb ne ñu ñoo bokk ndey ñu ñoo bokk ab baay. Mm-hmm. Euh, booy Niang. Mm-hmm. maa ngi ko indi parcelle. ma bu waa parcelle yëpp tàccul ma ko. comme bés boobu yàlla man la joxoon ndam. ñu woon ko ne ndam bi yëpp ñu ñoo ko seeg. génnul Sénégal. génnul fenn. ci Sénégal ndam bi la des. Mm-hmm. waaw noonu nga ko kon dama ko rafetlu bu baax a baax a baax a mm-hmm. waaw euh, mais wax ko ne am na sens nag. Mm-hmm. waaw am na sas. waaw moom Boy Niang wala Modou. Modou ci supporters yi. waaw pour accueil bi moo. Mm. Boy Niang. Mm-hmm. Modou dafa war a war a accueillir Boy mm-hmm. yi euh, Modou Lo boo Boy Niang. Mm-hmm. ànd si ak supporter am supporter Pikine yi aussi indi fair play aussi. Euh, safante ak Modou. tàccul ko ci remise am. loolu laa noonu laa ko gisee. noonu nga koy gisee ñu ne Modou Lo na dem jël pause dem toog ba ci kanam. seetaan làmb ji bàyyi xale yi mbëkkante wala gars yi mbëkkante ba ci kanam mu muy soogee waat boo ko yoroon loolu nga koy conseil wala nga koy jëllawaat avance ne ko waajal. loo nekk en état loolu nekk sa liggéey xaalis bi nekk sa kanam mënu loo wax ne xaaral xam nga lu sport bi rek mais gagne-pain la. comme ni ma la ko waxee la. Mhm. donc voyant que par exemple il est en forme. Mhm. yàlla jox na ko mu nekk en forme. Mhm. coach sam ou bien médecin am du ko waxee ne mun nga reposer ay trois mois quatre mois c'est incompréhensible. loo xam ne xam parce que am na moment boo xam ne soo ko reposé. Mhm. Euh, forme bii dina wàcc. waaw pour remonter waat aussi mun na am problème. Mhm. waaw parce que ngay reposé wu un an ou bien nga reposé wu sa ans ça dépend ñu ko mun bariwul parce que mun nga dugal as noo xam ne nekkul noonu. Mhm. waaw. Mm-hmm. te loolu yëpp daf lay wàññi. Mm-hmm. mais soo xalaatee ni comme par exemple fii ba trois mois dinaa duggaat ci lii. Mm-hmm. da am loo gën a motiwaat encore. waaw macha allah loolu aussi yaakaar naa ne am na solo loolu ci leeral bi waaye papa comme ni ñu koy waxee rek saa su ne dañuy am mbégte bu baax rek ci am ak yow jotaay te waxtaan bi suñu ko seeqee ak yow day doon njëriñ ci ñi nga xamante ne ñoo di askan bi kontaan naa bu baax a baax ci am ak yow jotaay ma bàyyi la nga joxe dernier kàddu. non non maa gën a kontaan ci yéen. Uh-huh. kontaan ci làmb bi. kontaan ci waa parcelle. Mhm. kontaan ci askanu làmb yëpp. Mhm. donc comme ni ma la ko waxee bu ma commencé rek di leen doxalee ci at bu bees bi. Mhm. rawatina nag suma doom yi ñoo xam ne ñu ngi ci diaspora ba. ñu nekk ñi di nekk France. maa ngi leen di ñaanal yàlla lu ñu bëgg a ñoo ko xam. yàlla defal ne ko te nekk lu gën ci moom. amiin amiin suma doom yi ma nekkee ci kër gi aussi. la même chose. ak suma soxna si boo xam ne. guddi ak bëccëg day daw ci njabootam. di daw ci ñun. ndax xam nga mbiru làmb. dëgg la. bu jafe yoon la. Mm-hmm. donc maa ngi koy sant bu baax a baax. Mm-hmm. di ko ñaanal yàlla yàlla gën ko jàppale. amiin aaral ko njaboot bi. amin papa waaw jërëjëf maam Ali muy kàddu yu am solo ci jotaay bi ñu amoon ak suñu papa Manga de nii rek la ñu koy defee ak yéen ci Sénégal Buzz 221 di kontaan bu baax a baax a baax di leen jox daje ci beneen numéro jërë ngeen jëf.